أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk internet Allô Sénégal ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ngeen dal jàmm seen beneen émission ndaanaan tey nag dañ ñëwaat ci kër gu ñu miin di dalalaat suñu ndaanaan buñu miin di suñu sëriñ di suñu kilifa di suñu imaam mu imaam Malick imaam gannaaw bañ la nuyoo ñu ngi lay ziyaar di la jox sa wàccuwaay waaye imaam dañoo gis ni keroog dañ fi ñëwoon ci coowal ki nga xamante ni mooy oustaz Pape ak mbaaco coow li nag gis nañ mu jël beneen envergure mais ba léegi mën nañ ni sa waa ji génnul yow rek la ñuy gis maanaam ci site internet yi yow lañuy gis ci réseau yi nga koy défendre ngay wax fësal sa position fësal tamit fi nga xamante ni féete nga ko ñu lay laaj imaam gannaaw bañ la nuyoo ñu lay laaj sa position bi lan moo ko waral sa diggante sa alaaka ak Pape Hann oustaz Pape Hann ba xam est-ce que xaritoo kase la wala fraternité dafa la wala ay frère ngeen wala wala lan moo tax yow ba léegi gisuñu Oustaz Pape Hann yow kese la ñuy gis ngay génn di wax. merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di nuyu mbooleem internet yi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci Allô Sénégal ah. di bégaat bu baax ci ñëw bi ngeen ñëwaat encore seet siwaat ñu. Euh, ma kontaan sax nag ci sa première question bi trop trop trop trop trop trop parce que bëggoon naa lii ku ma ko laaj parce que jot naa téléphone bu ne ci Sénégal ak bitim réew euh, mais nit ñi xam nga dama leen bëgg a wax tey waa Sénégal ñu dégg gis nga Pape coow lii buñ ci tuddul woon Pape Hann duma ci wax waxoon naa ko parce que man du ma nitu détail parce que nitu principe la borom faratalaa Pape Hann nag ñu bëri ci télévision lañ ko xam Pape Hann nii mu mel li mu am nii lii mu am nii su yàlla dogaloon lii xew ma jot ko téléphone muy layam-layami waxum lu wér kenn du ma ci dégg même bu fekkee moom dafa def man moo ma wax ni ma defuma waa léegi nag sëñ bi lu toll nii dal sa kaw nga jël téléphone woo nit ki bi ngeen ma woowee ne ma da ngeen fi ñëw laa ko woo mu ne ma dara laalewuma ko ci moo xam daf ma nëbbatu moo xam dëgg la wax mais li ma war man mooy jël position li waral nag ma jël position bi du caageenu Pape Hann bu ma xamanteel ci télé Pape Hann nii mu mel nii nii mu mel tey laa leen di wax lu ngeen xamul yéen baayam defu ko ko ndeyam defu ko ko Pape Hann nii mu mel ku ma bokkal ndey ak bàyyi mu la ay xaaji Idrissa Diop moo def Pape Hann nii Pape xam nga lu lu ko bàyyi yóbbu woon gannaaw bi mu jàngee alxuraan menuiserie yi Pape Hann menuisier la doon def bàyyi menuisier la ko dugal idri Idrissa Diop suma mag bu ma bokkal ndey ak baay la Pape Hann sopp ci affaireu piir yi ay diine ba tax mu bàyyi ji menuisier topp alxaaji Idrissa Diop ngir mbëggeel bi ko Idrissa di jox micro pour mu mën a wax ci gàm boobu Pape Hann amul 15 ans Pape Hann la dëkk kër baayam mag sama kër baay soriyantoowul du ku ma xam nii ci jàmbur beneen bi ci des jóge Thièsam dem Dakar toppi alxaaji Idrissa Diop sama mag moo ko waral ba ñu miin Idrissa xam nañu sax Pape Hann estulu lay firé. man Idriss ñoo bokk ndey ak baay mais bokku ma ak moom sax style nu ñuy ma wax la mbir ku mel noonu topp sa mag bëgg ko ba li mu am tey lu mu mën a doon bu yeboo mu xam fu ne mais base bi mu ngi jóge ci loxol Idrissa Diop beneen bi ci des ma wax leen ñu bëri nañoo gis ma soutenir Pape An tey jii nii est-ce que xam nga ni télévision Futur Média Ndiaga Ndour li may nettali Ndiaga a ngi dund ku ñu tuddee muniiru su muniiru si bu bees dayaa fi ñu daan toppatoo droit docteur ki nekkoon directeur bi muniiru professeur la à l'université Juma ji ma daan jiite université bu Thiès muniiru si moo ma gis samay intervention ci jamono boobu li may wax 2013 la ne ma bëgg naa ko mel ni yow Youssou Ndour am ko jël téléphone jox woo Ndiaga Ndour woo ma ne ma woo naa Ndiaga yónnee ma téléphone nu Ndiaga ma woo Ndiaga Ndour bisu lëndi mu boole ma kuñ tudde Josephine Mbuub Josephine Mbuub woolu ma ma ñëw ci tele bi bi ma yegg see keroog xàmmewu ma sax Ndiaga man bi ma toogee Josephine la may soog a wax Ndiaga noonu ñu defal ma luñ tudde fond vert mooy jël la benn genre test bi ñu ma booleel kebe la tudd bi ma ko defee pare dafa ne mais grand xanaa gars yi dégluwuñ la man ne ko ah mu ne ma yow def fond gisuma benn religieux bu ne fii ci biir li boobu oustaz Pape An laa fa xam ne ak Fat Bintu xaw ma fa oustaz yi fa nekk ci la ma Josephine laajee ma jox ko concept bi ñu bind ko régler lépp njaganduur yàlla dogal koor gi jub si ma laaj ko émission bi nu muy demee mu ne ma dañ lay jël nga ànd ak Pape An ci émission yi bi mu joxee Pape An sama numéro pour Pape An moo ma Pape An xamul ni man lay woo parent bi ma jotee dafa kontaan ñu def émission boo xam dafa yéeg émission bi comme ko doon defandool am na ku ñu tuddee Malick Dieng émission ci suba teel gi am na maa ngi fàttaliku émission bi yéeg bu mu yéeg tax na benn femme bu nekkoon consulat bu Paris dafa woote en direct na sama numéro la soxla xanaa kon kale woon nañu pour man ma dugg TFM xam nga lu ma génn lu tax continuer wu ma dugg Alaaji Idrissa Diop mi émission boobu bi ñu paree kër Idrissa dem ma nettali Idrissa li xew Idriss ne ma est-ce que yaakaaroo ni boo demee TFM dina nekk poids bu rëy ci Pape te Pape Hann toogagu fa bu baax. billaahi wallaahi watallaahi ma reculer li may wax nag ñi ma Pape Hann mi ma koy waxal xam na ko njëganduur xam na ko Mounirou Sy ngi dund Josephine Bouba ngi dund su ma nettalee lii bu ñu rappelé woo dinañ xam ni li may wax dëgg la ma reculer won gannaaw télévision bi ngir lan. soutenir Pape Hann ngir mu am assise bu dëgër toog ndax man wér na ma ni ñun ñaar ñu ne fa am na benn poids bu diis buy tegu ci kawam parce que Pape li mu am dama ci participer. kon lii yëpp ma la nettali su yàlla dogalee ma jaar fi ak Pape Hann mais tonu bu toll ku jàppale nit ba yow fi nga waroon a dugg nga rocceeku ngir may ko moom mu am stabilité dal kan mooy tey ñi fi nekk di coow ñëpp ku fi njaga duur woowoon nga dem. man ma rocceeku ngir lan soutenir Pape Hann ngir mu toog est-ce que xam nga naa la wax leen Pape Hann ak may dégg mas na di def émission à la télé yeewu leen boobu dañuy téléphoner di joxe ay question muy répondre mu répondre ci benn question publicité ñëw damaa rayante comme nii ma jóge rek jël sama téléphone di woote pour jot Pape Hann mu jël ma téléphone xoolal loolu ne nit ne ci émission jël la téléphone ci heure publicité ma ne ko sa waay mu ne ma ne ko masala bi nga àtte sànq ci miiraas duma la wax xamoo ko dama naan dangaa juum mais wóor na ma ni xam nga ko ne nii la ak nii kooku du donn ndax al mu'minu laa yarisul kaafir yow nag defaraat ko nga ne damaa juum mais bul ne kenn ma woo publicité bi dafa jeex Pape Cheikh jël rek Pape An changé jël kaddu nekko li ma wax sànq nangam ma toog ci ginnaaw soutenir Pape An loolu tamaa ngi toog fii boobu Thiès waa sëñ bi lu mel noonu ku ko def ci nit xanaa soutenir nga ko est-ce que lii Sénégal mas nañ ko xam te pourtant bi coow li jógee may jóg nit ñëpp dañoo yaakaar ni Pape Hann lay défendre ngir ay intere yu ñu séq Pape mën na maa toog ay weer du ma ko dégg téléphone mais dama ne lu mel nii ku ko defal nit Pape Hann baayam sama baay la sama baay ko firil alquran baayu Pape Hann laa wax Pape Hann génnu ma Pape bu fekkoon droit d'auteur da koy fay du ko fay Bouchra du ko fay Massamba du ko fay Demba day jël quatre-vingt pour cent fay ko sama kër bàyyi soo ko yóbbu vingt pour cent feneen foofu la yeewoo ci diine kon Pape Hann du ma ko bàyyi su fekkoon dañ koo nar a sàkkal pexe dama ciy dugal sama loxo rawatina débat bi bi mu jógee dama ko woo téléphone mu ne ma laalewu ma ci mais même bu ci laalee te nëbbatuma li ma wax laa gëm loolu laay défendre ma bëgg Sénégal ñu xam ni Pape Hann ku mu mën a am ndakaaru bànneexaleen boole ak teraanga mais bu cëw juddoo da ngay rasu nitu démbam rek mooy taxaw man na ku ma xam-xam ni homme de principe laa man nii la ma yàlla bindee de billaahi wallahi tallaahi nii la ma yàlla bindee am na loo xam bugguma ko révélé man sama dignité bugguma ku ko laal man mën naa yeewu xiif mar duma yor dërëm toog jàpp sama ñàmbur ngir préserver sama dignité Pape Hann dignité maanaam Pape Hann ñu ñu waxal ko jëye ju toll nii ma jot ko téléphone moo ne ma dara newu ci dara laalu ma ko ci ma toog jàpp sama ñàmbur am na loo xam du ma ko def man bokkuma ci gaayu hypocrite yi nga xam ni dañuy ànd ak yow bu bànneex jotee da nga a gis ci plateau Pape Hann da ngaa mas a gis Pape Hann invité ma ci émission am te pourtant Pape Hann day invité ba invité muusi parce que préféré wu ma loolu invité na ñu ma jàngal man ñoo xam maa leen jàngal kon xam nga man maa tànn su nit nekkee ci jafe-jafe ma jóg Sénégal laa bëgg ñu xam ni du tey laa soutenir Pape Hann kon lii xew maa ngi ñaan suñu boroom yàlla suturaal ko ci ndax Pape Hann ñu xawwi suturaam dolliwul ci sama dignité dara mu am teraanga gën a yokk wàññiwul ci sama teraanga dara. mais oustaz est-ce que du ñi nga xamante ni dañoo toog tey nekk ay soppeem nekk ay xaritam toog noppi est-ce que du ñooñu dañuy ragal bu buñ ci waxee preuve génn wala dara génn ñoom ñu am ci gàcce. waay waay man na xam nga euh, dëgg-dëgg sax gaa yi ñu ngi nëb nëbal di ñaan. man de billaahi wallahi tallaahi maa ngi ñaan coow li yàlla na ko yàlla fay mais bu preuve génnoon ba ñu wone Pape Hann ci ay caaxaan ñëpp gis ko dinaa wax Pape Hann dëgg terewul ma ànd ak moom ci combat bi man mënuma ànd ak keneen bi ki génne ki révélé lool ba damaa mën a ànd ak moom diaboliser wu ma ko waxuma dafa sama yoon nekkul ci fiem moom moo tànn li mu tànn sa ci ci loolu lañ doon jëm si ndax gis nañ boobu ba léegi ku mel ni am zozo xaw ma na may ngeen baal ma sax ci tur bi li ma ko tudd muy am zozo ndax bëgguma sax di tudd turam ndax ñëpp xam nañ ne du du référence du du du du exemple du. du eh, man je ne suis pas xam nga lu tax. non nañ waxante dëgg. audience bi mu am moom Adi amu ko Aline Sall amu ko keneen amu ko ci réalisé yi. waaw kon ñenn may audience boobu. ci loolu laa doon jëm si. ndax lan la yàlla wax ci ñi nga xamante ne ñooy partage vidéo ndax kooku euh, borom ñaari tur la ngeen baal ma ci kàddu gi ndax am na loo xam ne wax nañ ko ci borom ñaari tur yi nee nañ sax bu waxee yow nga reetaan yàlla mere la. kon kooku noonu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo koy déglu wala ñoo koy bàyyi wala ñoo koy may audience boobu mu am lan ngay lan ngay dikk ci ñooy sëñ bi daal mbiru góor jigéen wax naa ci lu leer yàlla favoriser wu ko alak na leen bu waxee nga ree man loolu jànguma ko ci téere gisuma ko tamit ci benn histoire loolu xëñ na nit ñee xërër fu mu joggi ku fa joggi dem safara yooyu yëpp ay ëppal la góor jigéen daal lislaam bëggu ko yàlla bëggu ko bëgg nañu lor leen ci kaw suuf mais damay wax ni kii nga wax nu mu tudd sax man maa ngi koy soog a xam ci coowal Pape Hann bii lañ ma soog a yónnee ay mbiram ma koy xool mais dama ne moom ñi ko may audience su cinquante et mille vies ci benn minute ñan la c'est que man sénégalais yi laa bëgg a laaj Makka lañuy jublu bu ñuy julli wala Jérusalem la ñuy jublu maanaam mënoo di diaboliser nit te kooku ngay diaboliser tënoo bii am ci coowal papaam kan moo ko génne kookoo ko génne mais ñan ñoo ko publier ay sénégalais ay jullit ay nabiyee il faut que nit ñi xam lu ñu tànn dañuy tànn mbaax ñu àndandoo boy boycotter lépp lu baaxul mbaa ñu tànn bon àndandoo ñun ñëpp di bon wala boog ñu xam ne mbon ak baax daa jaxasoo ñu bañ a jëb mais omso moom fu ñu ko dumaa benn duma sénégalais yu bëri yi ànd ak moom ci liggéey bi parce que ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo koy partagel ay vidéo mais oustaz est-ce que du tamit euh, sénégalais li tax ñu koy déglu est-ce que moom moo détenir les vraies informations parce que gis nañ ni oustaz Pape Hann moom ba léegi génnul wax mais gis nañ ni euh, Om Zozo moom noonu dafay wax di génne ay preuve di wax di génne ay preuve nga xam ni kii li muy wax am na fu mu ko teg kooku tamit yoon la nga déglu ko pour nga boo bëggee xam information yi valable. c'est que xam nga yéen si internet yi vraiment vraiment man yéen a ma woo de man woowuma leen c'est que vraiment yii ngeen di def nii gis nga fi mu toll nii coow lii coow lii bëggu leen mu fay man xam naa loolu te man it lu leer laay wax duma ci noppi parce que man dama cee wax te li may wax lu ma xam laay wax dama ne kooku nga ma tuddal léegi. bu fekkee ni moom moo yor les vraies informations y un problème d'éthique dans nos sociétés suñu réew mi am na problème kon jikko suñu demee ba kooku la ñu wax ki ñu ki ñu ne lislaam da koo nangam yàq deram diaboliser ko wax lu ne su ñu demee ba kookoo am les vraies informations Sénégal fii mu toll nii kon ku romb sa morom kàbbaral jullee ko ay néew a fi ne. dañoo gis ni tamit combat bi moom tamit wéetu ci. ndax gis nañ doomu ndayam xaritam di Adamo feelu ko ci beneen côté bi ndax bërki dem sax def na live invité ko moom doomu am zozo ñoom naam ñoom ñaan ñu am lu ñu wax am lu ñu révélé ci ci live bi Adamo tamit dugal keneen ku jigéen koo xamante ni wax na ba dugal ci Oustaz Modou Fall mais Oustaz Modou Fall tamit gis nañ démb moom it mu génn mais bu mu génnee est-ce que d'accord nga ci communication bi mu génn. Euh, kooku nga tudd mooy kii def live bi mooy. Adamo waa Adamo moom dégg naa ku bëgg Serigne Babacar Sy la. li may ñaan ta koy wax comme moom sëriñ Serigne kër si la dama koy ñaan solennellement moom Adamo su fekkee ni ne sëriñ Serigne kër si biñ koy wooteel wér na maa ngi koy ñaan coowal ma Makumba aan bii lépp lu mu mën ci wàqi ba mu sóot ñaanuma ko na ngir ma sàmba wala ngir ma demba wala ngir Pape aan wala ngir Oustaz wala kenn dama ko ñaan ngir jëmmi Serigne kër Sy Adamo bu ci defati live lu dul da ngay gas ba mu xóot suul woneel ni mbiru Pape an bi kenn dootuma ci dégg may waxati ngir de ngir jëmmi sëriñ kër Si loolu rek laa ko ñaan. waaye oustaz mu mel ni oustaz yi tamit ñu ngi commencé bëgg a daw res ndax euh, oustaz Modou Fall démb bi mu génnee sorteem bi gis nga ni mu communiqué dafa mel ni moom it kuy ñaan. waaw xam nga man war naa ñaan mais kooku nga tudd moom man su ma doon moom du ma ñaan Modou Fall parce que man coow lii bu ñu ma ci tuddoon billaahi du ma ñaan bu dee defuma su ma defee du ma ñaan suma deful du ma ñaan damay toog bu ma defee damay toog ni miig su ma deful damay génn ne defuma mais moom mënul ñu tudd ko ci ba pare mu ne day ñaanal papaam non non moom dafa war a toog moom ñu ñaanal ko man gëmuma ni moom dafa war a génn di ñaan parce que ñaan boobu c'est-à-dire mooy dafa mel ni Pape Hann dafa def mu génn di ko baalul ak naan ñun dañuy xale lañ dañuy xaw ma lan ak leneen yooyu yooyu man je suis pas ànduma ci boobu communication parce que Pape Hann bu defoon dina wax ni def na moom nee na deful nañ jàpp ni deful rek te ñu ñaan yàlla sutura am ci. comme li nga mujjee wax muy Pape deful mais gis nañ ni. ku ci deful de dafa dama ne la nee na deful. nee na deful waa ku ci mel ni tey Abdoulaye Diop Khass. waaw waaw ku ci mel ni tey Abdoulaye Diop Khass bi mu génnee dafa dafa wat ci kaamil ba pare. xamal ni ñu dugal na plainte contre X mais est-ce que tey oustaz Pape Hann dugal na plainte wala sax mën nañoo xaar mu dugal plainte fii ak ay bés. maanaam Pape Hann su ma la nëbbul bi ma ko laajee mbir mi lan moo ci xew mu ne ma nangam nangam ci laa pare ci dossier bi man xam nga ci lu ma nekk ci lim ma waxoon ku ma laaj ma tontu lool. ay nag waat ci kaamil sénégalais buy waat ci kaamil moom tappale sénégalais ñeme na waat ci kaamil du dara ci ñoom gë weddiwuma kooku waat ci kaamil gëmuma ko parce que xaw ma ko li ji kaamil boobu man vraiment concerné wu ma taxul ma weddi taxul ma gëm man accusé wu ma kenn mais damay wax rek ni li gën daal te am solo te man ma nekk ci logique boobu pour le moment mooy dama jàpp ni coow lii dañ ko war a suul gas ko bu mu xóot suul ngir yàlla ak lu bëree bëree bëri man loolu laa gëm waaw. waaw oustaz balaa ñuy jàll ci suñu deuxième partie émission rek dañ gis euh, ci problème bi nii nga indi beneen façon communication boo xam ne xàmmee wuñ la ko woon yow ci dal lañ la xamoon ci ci ci conférence yu yu neex mais bii daanaka mën nañ ni sa wax neexul lan moo waral façon communication boobu imam non xam nga tamit communication ñi jàng communication dañuy wax ni euh, laaj bu nekk ak tontoom xam nga tamit mbir mu toll nii mënul dal ci kaw sa nawle nga laaj ko mën la dara xewul nga génn di wax ay waxul layam layam di layeeg di wax ay waxi ndànk man dama jàpp ni am na benn nit sax ndeysaan kilifa la gu baax euh, damay bañ tudd dëkk bi mu dëkk Euh, mais kilifa la am sant bu tedd ci Sénégal bu ñuy wër nit ku baax la ci famille boobu woo na ma ne ma dama gis ni baat yi nga wax vraiment daf ci am bu ma déranger mooy baatu gel bi nga wax waaw mu ne ma ñëpp am nañu gel loolu vraiment ma ne ko maa ngi ciy jéggulu ma ne ko lan laa waroon a wax mu waa da waroon wax sax coro ma ne ko mais c'est sûr que ñëpp am nañ rek wala mu ne ma waaw loolu moom wér na waaye nag gel bi dafa rafet ma ne ko comme gel bi rafetul naay wax coro rek waaye ñu it Sénégal gel la ñu xam nag waaw terme yooyu bu ci kenn dégg xaaju Malick Diop ba tax nga juge Malick ci parole yooyu damay wax comme ni nit ñi déggee man toujours damay wax ci conférence yi naan euh, nekk ci conférence wala nekk ci sa biir classe dama koy wax ci conférence yi bind ci sa tableau les élèves danse ñu naan la monsieur luy danse nga naan danse mooy da ngay jël sa tànk bi aj fii jàpp fi bu boobu élèves yi du ñu xam bu dee vrai communicateur nga boo nee xale yi les élèves danse ñu ne monsieur luy danse da nga naan doom tàccu leen ci classe bi bu xale yi tàccu yow monsieur bi nga takk sa ndigg jóg riij yëngal sa ndigg ne saay bu ñu yuuxoo nga ne leen dansa ngoog romb leçon boobu dugg na mais jàngale dafa am nu koy defee Cheikh Al Hadj Omar dafa wax ni man lam yajlis ala kursiyi l xikmati fala yambagi lahu an yamura bilmaarufi aw yanha an il te mi ngi ko defee iqtibaas ci xadiisu rasul li yonent bi naan xudil xikma wala tubaali min ayna axataha nee na ko amul sagesse warul waxtaan kat yu bëri billaay communication rek moo yàqu waxuma nag dama mën communication de mais dama ne communication dañuy tànn ñi ko war a def loolu moo tax ma indi façon communication parce que débat bii lii rek la laaj laajul leneen mais du caagin xaaj ma dafa tàng wala mer wala muy faral Pape Hann man Pape séquñu lu ma koy faralee mbir mi xew na laaj naa ko wax na ma tontu na gëm naa li mu wax ci lologie boobu laa nekk balaa nga ma doon xam rek li ma la wax mooy preuve génn du tax ma bàyyi Pape Hann ci combat bi mais boobaa ñëpp dañ xam ni kon li mu waxoon du dëgg terminé. mi ngi noonu kon bu ko defee ñu jàll ci suñu deuxième partie émission muy li ñu fi gën a indi di élection locale yi waaye imam élection locale yi ren Thiès dañ gis lu yéeme parce que dañ gis ay jeunes yoo xamante ni mën nañ ni sax euh, ay politiciens yoo xamante ni ñi ngi woon ci ci ci ci euh, Benno Bokk Yaakaar waaye gannaaw bi nga xamante ni le président son excellence le président de la république génn na listam sampul ñi nga xamante ni ñooy booyu Benno Bokk Yaakaar dafa dafa dafa jël presque listu réew mi buñ demee zone nord gis nañ ki nga xamante ni moo fa nekkoon muy le président Habib Niang gis nañ liggéey bi nga xam ne yàgg na ko liggéey foofu noonu demoon ba jeune jeune jaxaaw yeeg ñëpp investi investir ci moom président de la république ñëw samp foofu noonu lamin lamin jàlloo muy muy booyu réew mi ñu gis tamit bu dee euh, Thiès ville euh, président euh, lamin président Habib Dieye kii nii ab Ablaye Dieye mi ngi fa mais jatal la fa la fa président de la république son excellence samp loolu est-ce que est-ce que du ban ban ban ban impact la am ci ci ci ci ci politique gu Thiès sax laay wax. waaw su fekkee lii nga wax dafa am président bu dee moo samp yaa a problème parce que localité yi yoonu Macky Sall waru cee nekk ci cees su fekkee président nga wax dafa lii nga wax bu dee président loolu moom c'est de la catastrophe pour les Thiessois. c'est-à-dire mooy Thiès waaye tànnuñu kon li ki leen war a jiite Macky Sall moo leen désigné déedéet Macky Sall Fatick la war a lijjanti. parce que moom Fatick la dëkk fii waa gox bi ñoo ko war a lijjanti man nag li may métti rek ci mbir mi wax dëgg fa yàlla déggoon naa Serigne Cheikh Tidiane si Al waxoon wax bu am solo te yegg si nañ ci nag sëriñ Cheikh Tidiane Sy newoon na nañu profitoo gaawantu régler société bi balaa Serigne si di ëpp taalibe yi nañu profitoo gaawantu régler système bi balaa politiciens yi di ëpp population bi. di ëpp électeurs yi mais agsi nañu ci moment boobu maanaam li xew ren ci élection locale yi man de billahi wallahi tallahi c'était la première fois élection locale am Thiès xamuma leader yépp man da toog ba yàgg rek seen ku dawal otom romb la ñu taf ci ji sàmba keneen rombati la mbeng sàll dafa mel ni daal li sant bu ne dañoo wut seen seen benn nit mi lii lii lii lii lan la kaay leen ñu ànd defar gox bi lenn naa la ko wax politiciens yi ëpp nañ sens ñu nekk ci diini ji y a problème dans maanaam problème d'éthique politique bi may wax dafa am ci seen biir gis nga li ñuy wax affaire euh, baat boobu may tudd te sëriñ bi ne ma bu ko waxati muy gel su doon dañu ne koo amul masul am gel doo déposer sa candidature sénégalais billahi ay guinéen ñooy nekk maire yi benn Sénégal maanaam ñi déposé ñëpp danga ciy xool nit xam ni kii ambiance ko dugal ci lii mais dara la xamul ci local am na benn leader bu ne ma woon dañuy ñëw fii seet la. après ma déggaat ñu ne itinéraire bi moom la xamul woon ma ne waa ko xamul itinéraire gox bi nga war a def nooy xamee gestion localité bi. Ah, beaucoup de responsabilité ci seen élection yii élection yii du élection yoo xam ni élection présidentielle la wala élection pouvoir wala élection élection bi affaire gox goxaan la. kenn ku nekk te mu nekk élection yoo xam ni nag dafa compliqué parce que man dama woo nit pour mu expliquer ma élection yi nan lay demee c'est-à-dire vote yu jafe la c'était la première fois ren jii électeurs yi dañu war a seet kan mooy ki nga xam ni moo jiriñ nit ñi kan mooy ki gën a jege askan wi mais man boole naa ci beneen mooy nañu seet ki gën a jub parce que vraiment tamit euh, gestion ku jubul mënu ko gérer te suñu politiciens yii nag bëgg nañu suuf ni ñuy saax-saaxee suufu dëkk yi lii boo demee problème foncier mu am fépp ceeskaay ñu ngi koy jooy soo demee dakaar looloo fa ne soo demee Louga loolu soo demee Ndar noonu soo demee Kaolack noonu soo demee Tamba foofu problème boobu moo am te loolu gestion localité bi la ñoom ñoo koy gérer am na façon boo xam ne vraiment te man li ma jaaxal Lamine mooy terrain yi ñuy jël yépp au lieu ñu jox ko ñi amul ay kër mais ñoom ñi amoon ay kër ñoo koy séddoowaat moo tax man dama bëggoon vraiment waa Thiès organiser wu d'une façon boo xam ni vraiment ñi fas yéene gérer localité yi bii yoon dana am benn transparence bu am boo xam ni suuf si des ci dëkk bi parce que tamit nag dëkk bi daggate nañ ko de espace bu ñuy joxee ti daanaka amatu fi li fi desakus néew na bu ñu ko bëggee séddoo ñoom seen biir mais ñi amagul kañ la ñuy am je pense que kon problème bu doy waar ci lañ jëm électeurs yi nag am nañ ci responsabilité bu kenn jaay sa carte ci 2000 francs bu kenn jaay sa carte ngir lan nit sama famille la bokk bu kenn jaay sa carte ngir lan nit laa gën a xamanteel joxeel sa carte ne kii les francs li ñu jàng tubaab di wax lom qu'il faut à la place qu'il faut ku ne li nga mérito nañ la ko jox suñ ko defee rek je pense que localité yi dana répercuté wu ci présidentielle yi ñu jëm dana répercuté wu ci législatif yi ñu jëm incha allahu rabbuna bientôt waaye imaam dañ gis ni euh, xeetu campagne bi bi xew ndax ñoom ñëpp dañu comme ni nga tudd dañuy dañuy toog mooy mooy mooy mooy candidat yëpp dañuy toog ba élection yi jub si maanaam 20 jours jub si ci ci élection yi ñu jug xëpp ci dëkk bi yëpp ay millions ngir rek campagne gis nañ ci ku ci mel ni ab laa Dieye bërki Dembo Ndiaye indi na fi artiste bu mel ni Wally sekk te xam na ni Wally sekk pour nga déplacer ko ça vaut ça vaut des millions ñu jël mu jël millions yooyu jox ko jox ko jox ko ku mel ni Wally Seck mu ñëw defal ñu benn concert bu 30 minutes ñun waa Thiès naxee ñu loolu ngir rek Ablaye Dieye moo fi indi moo fi indi Wally après est-ce que gisoo ni xaa millions yooyu noonu moom la ñuy jéem a récupérer bu ñu toogee. c'est que voilà la mel nag tudd nga affaire bi gis nga affaire bi commerce la commerçant bu jógee fii dem Chine jëndi bagage bénéfice lay wut. maanaam ñun amaguñu ay leader yoo xam ni dañuy génne seen alal li wajihillaahi taala pour gérer gox-goxaan yi. ñi nga ci seen ñuy financé yëpp te man programme mu leader yi xam nga lu ci triste sama bopp mooy dégg guma ku ci wax programme ñi nga ci dégg ñëpp ku ci taxaw di def discours ak ku ci ñëw sa kër li mu lay wax ndax yàlla dogal na gox bi moom defal nañ leen financement mais financement mooy programme kenn amu ci programme financement rek koo ci dégg muy wax ñoom leader yëpp financement financement du programme programme ay xalaat la yu ñu tëgg yoo xam ni mën naa joyanti gox bi yëkkatiwaat gox bi jële ko ci fi mu nekk yóbbu ko ci fu mu fu mu nekkul woon lii nga tudd nag c'est-à-dire mooy loolu moo am ci mbir mi mooy mbir mi gars yi dañuy commerce comme nag sénégalais yi dañoo desee yeewu ba nëga ci ñi ma ko war a wax ngeen baal ma mooy dafa bëri ñoo xam ni xam nga lu ñu gëm ah man de ki may jëriñ laay àndal surtout nag suñ bokk jigéen ñi man de ki may jëriñ laay àndal loolu la ñuy jublu di wax liñ ci bëgg mooy ki ngay jublu ki ngay ki lay jëriñ ngay àndal mais ki jëriñ lan la war a gérer après gox bi xam nga jël ay financement joxe ko teg ci ay intérêt wala jël financement joxe ko gratuitement bu mu ci mën a doon li ngay yootu bis boo ci jotee li nga financé woon yépp di nga ko récupérer financièrement te ci alal ji waroon dem ci askan mi rek nga koy jëlee kon je pense que vraiment amel nañ ñu àq gàddu nañ suñu àq teg nañ ñu coono te man wax dëgg fa yàlla su ma la nëbbul te caaxaan jeex dëgg des du ma ne amul ku ma ci doy de mais très sérieusement tiit naa trop ci façon bii ma seen maanaam gis naa ay liste yoo xam ni li ma njëkk a jaaxal mooy ñii ban nit ban ban mbooloo moo dajaloo vraiment investir kii pour mu nekk tête de loolu daal vraiment lu ma tiis la man daal je pense que élection locale yi li waroon prépare pour législative yi la waroon prépare élection présidentielle yu ñu jëm mais c'est dommage nii liste yi demee mais nag politiciens xam nga dañu bëri ay jeu su ñu xamee list yu bari mooy tax li ñu bëgg am ko noonu lañ koy départager mais daal c'est ñu ñaan suñu borom rek li ñuy ñaan yal na yàlla defal ñu jàmm ba ki gën ci gox bi yàlla jox ko ko ci barke rasulillah mu ngi noonu Imam Malick tey lii lañu indiloon askan bi indiloon ko chers internautes yi nga xamante ne ñooñu dala topp ci Allô Sénégal ñu ngi leen di ñaanal jàmm fii ak ëllëg ba beneen yoon ci beneen émission ndaanaan incha allah jërëjëf Música